gars yi démonstration de force bi nga xam ni gone yi nekk ci euh, Pastef wala ñu wax ex Pastef lépp mën a ne waaye nag ñam bi ji dara ñorogu ci fi mu toll nii tasaareegun dara euh, loo xam ne lu wér la fi mu toll nii lu ne mën naa ne ndax affaire yaa ngi wëlbatiku ndànk-ndànk plateau yi nag démb gars yi rajaxe nan ko dañu koo miire kenn amul foo jaar lépp gone yi Pastef yi ñoo ci toog di joxe seeni xalaat tey daa mel ni fan yi ñoo téye réew mi gars yi def leen seen i abonnement yéen a ngi ci télévision bi nga xam ne lépp loo xam ne jëm na ci information yi wér te wóor jàngat lay doon télévision yi ñu gën a seetaan nag démb télévision yi ñu ngi leen ni xàng ak li nga xam ni mooy record yi démb yi bagage yi bàcc yi gone festif yi nga xam ne bàcc nañ ko gars yi ci xam-xam bi nga xam ni moom lañ tasaare ci euh, pénc mi nga xam ne moo doon am fule ca Walf euh, TV Walf FM ak Walf Net loole daanaka Dame Mbodj la invité Dame Mbodj émission ba mu doon dox en direct émission boobee daanaka ba fii may wax ak yow toll na ci cent deux personnes yoo xam ni cent deux mille personnes yoo xam ne suivre suivre dañ ko maanaam téeméeri junni ak euh, ñaari junni yoo xam ne topp nan boobee émission daanaka dana exiko benn émission bu ngeen topp information yi ba mu leer euh, télévision Futurs Médias nag gis ngeen ko moom moomee tamit daanaka émission bi démb moog Walfadjri net daanaka ñoo commencé noonu net daanaka ñoo jeexandoo waaye bi ñu saytoo li nga xam ne moom la information yi am ba tey ji ñoom ñaar ñooy télévision yi nga xam ne ci Sénégal dañuy dàqante ñoo fi ëpp lu luñ leen di seetaan te it maanaam duñ ko wax waaye dañ koy indi ngeen gis ko cent deux mille vie euh, boobaak tey jii émission bii di jàkkaarloo am na ko euh, féngoo ak bi li nga xam ni mooy bu Walfadjri mbir yaa ngi commencé compliqué Seneweb tamit di doxal bu baax a baax di télévision boo xam ne newul ci li nga xam ni euh, moo nekk euh, fiil yi ak ci li nga xam ne canal yi waaye mi ngi nekk ci lii di euh, YouTube beeg yooyu taxawaayam démb am na solo bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni démb gone yin fi doon doxal nga xam ne daanaka Mansour mi ngi fi woon Serigne Mansour mi nga xam ne mooy seen jàngatkat bu mag bi 43000 vies la am ci jamono ji Sen TV nag daanaka fi mu toll nii moom it euh, comme ni ma leen ko doon waxee ci jamono jee xam naa ni war nañoo gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ndax affaire yi ak cooxe am na ci bu baax a baax lu jige ñaar ba ñetti weer yi nga xam ne génn nañ ko ci suñu ginnaaw gis nañ ni télévision boobee lu bari ci ay bii da koy wàññi waaye nag mën naa am daa am lu ñuy waaj préparé ko ndax bugaan ponkal la ci yoon.